kàngam yi nekk ci langue politique gi ñoom ñëppay ñëw fi mu nekk ni tuuba ñëw rek di ziar ci Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ci gaaw gi bokk na ci kilifa yi fi teew njiital parti réew mi Idrissa Seck. li ñuy séentu ci màggal gi mooy ñaan suñu boroom ci barke weer wi ci barke bis bi euh, lépp loo xam ne lii sénégalais yi soxla nañu ko ci jàmm ak xéewal suñu boroom tàbbal ko ci biir màggal gi. ministre Abdoulaye Daouda Diallo it ñëw na kër mu Mountakha moom mu jiite conseil économique social et environnemental ànd ak délégation bu am am solo. ñu ñaan yàlla yàlla nañu yàlla may kattan yàlla may ko kattan moom Serigne bi yàlla yàggal ko suñu kanam lool lool ndax liggéey yu am solo yi nga xam ne mu ngi koy def ci Touba. yàlla dimbali ñi mu yeggal ko si jàmm ak salaam. Elimaanu jëwriñ yi Amadou Ba moom it seen nañ ko fi ñëwoon sàkku si ñaan xoolit tolluwaayu dogali am solo yi nga xam ne nii nguur gi jël na ko ngir màggalu atum 2023 gi jaar yoon ba ñu am benn tolof tolof bu bawoo si nguur gi Elimaanu jëwriñ yi yamul foofu mu ngi rek dalal xelu askanu Touba Mbàkke di leen xamal ne chantier yiñ su tàmbali daañu ko yeggale rawatina yi ñeel wàllu assainissement. ndax Touba ni mu bindoo. mën na am problème mu assainissement bu ndox mi bare. moo taxoon président tàmbali fi woon liggéey bu mucc ayib boo xam ni toll na ci ñaar fukki milliards ak juróom-ñeent. loolu ñëw fekk si yeneen ñaar fukki milliards yoo xam ni def nañ ko fii depuis 2012. liggéey boobu nag dina yegg incha allah. incha allah dina yegg ci mois de décembre bi mais fii ak muy yegg. jël nañu ay matukaay ba nga xam ni fu mu tawee rek dinañu fexe ci nu mu gën a gaawee ndox mi mën a dem. fileeg ay waxtu ñu ngi xaarandi yeneen i kàngam yu nekk ci làngu politique yi fii ci Touba Mbacké.